ca gërëm la jërë nga laal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbooloo na bu mu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi wa sallam. en calmini denndaangal banndiraaɓe julliɓe fof no ngi nuyu mboolem bi eɓe ngalaa ɗo nekkul fii ci jataay bi en gardini salminandu e ziyaro alu beyte nabi sallllahu alayhi wa sallam ñuy jiital nuyoo gi ak ziyaar bi njabootu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nekk bi ci biir mbooloo mi en deftini heen ɓesngu cheikh alhaji moudo fouti radiallahu taala anhu en gardini khalifa meɗen ceerno meɗen jinnaɓe meɗen ceerno bachir mountaga baha cheikh moudo fouti radiallahu taala anhu ñu toftal ci njabootu Mawlana Cheikh Omar al Fouti radiyallahu taala anhu ñu jiital ci suñu kilifa suñu wayjur suñu sëriñ ak Cheikh Mouhamadul Basir Murtada Daha Cheikh Omar al Fouti radiyallahu taala anhu en dewni hen dendagal aimma wal ulama woni almameɓe e annduɓe meɗen ɓe ngannduɗa ko ɓen woni holluɓe en laawol ha mbawɗen anndude allah e anndude nuraɓe allah sallallahu alih w sallam ñu jox leen ci mboolem imaam ñu fi teew ak suñu borom yi xam-xam ñi nga xam ne ñoo fi teew ñi nga xam ne ñoo ñu won yoon bu ñu mën a jaar ba jaamu ci yàlla en deftini hen dendagal musidɓe e bandiraɓe ɗoɗo mbawi ummorade foof ñu toftati mboolem xarit ak i soppe ak i am di jàmm ak fekk fu nu mun ci jugee ɓe deftinimɓe ɓe pottinimɓe foddaɓe saabu allah e miraɗo allah ɓe ganduɗa so en darima daro so en gummima gummo walla ni gummo ha ɓuura en ummade e darde foof ñu toftal ci ay dëkkandoo ñu ñu bokk dëkkal li nga xam ni lépp it nekk ngir yàlla bu ñu taxawee ñu taxaw bu ñu toogee ñu toog bu ñu jógee ñu jóg ñoom ñëpp ñu ngi leen di toftal ci ñoom di leen jaajëfal onon comité d' organisation mo ganduɗa ko onon daran ko dendagal gueɗe moɗon ɗe e denndaangal commission ŋaaji ɗi fof min calminii on min juuriima on min duwaniima on min ñaagiima allah subahanahu wa taala oɗo allah subahanahu wa taala hokkuɗen hawrude oɗo waktu e oɗo sahaa yo wuurno en o sellin en haa koorel sahaa garawɗen ɗon yéen comité bi nga xam ne ñoo yor organisation bi ak yeneen comité yi nekkaani ci biir ñu ngi leen di jaajëfal di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di sant yàlla mii nga xam ni moo ñu may ñu fekkee bile bés ci waxtu bi. noddulere sadi kono ko nowaadere ɓuri sadde nee na woote jafe na waaye ñu wuyesi la moo gën a jafe nooteede sadde ko nootereede sabu allah kadi ɓuri sadde uyu ak jafe ñu wuyesi la ngir yàlla it moo gën a jafe noddaandu noddaama fewde e banndiraaɓe yo ngaɗa yiɗoo ñalɗi allah yawgooji bandiraɓe ɓe lootima nootorima sabu allah yo allah yatmo jam neni oote oote mokkilino wuysi jihileje tawi te tawi ngiri allah min lendi tamit ɓe lootori sabu allah eɗen ñaagui allah yo allah yatmo jam ñu wuysi ngiri allah ñu ñaagi yalla yalnale yalla fay yiw so ɗum yewti noon musidɓe meɗen bandiraɓe yewtuɓe jewɓe diiniyankoje يود يود تيانا ميدان شيخنا متجان شريف رضي الله تعالى عنه قلا إمام شيبة هايتي إمام عمر جان هايتي شيخ الحاج عبد العزيز فال كم بفوف بنجارة يواليكم الجنة ñooñu bu loolu weesoo si ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne waxtaanal fii tàmbale ci maanaam imam Seybatu Mbay ak imam Oumar Diagne ak imam Cheikh al Abdoul Aziz euh, Fall ñun ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal yal na leen yàlla fay ci seen waxtaan yi ngeen waxtaan. ɓe janngini ɓe paamni ɓe mbeltini janngalele ngeen nanndal ngeen begloo ngeen ɓe kirjini ɓe coftini yo allah yeɗɗuma ñaaf ngeen sawarloo ngeen yalla le yalla fayi soɗum yewtii noon machallahu tabaraka llah diine men o ko jam diine men o ko diine yurmeede bu loolu weesoo suñu diine ji diine jàmm la suñu diine ji diine yërmande la allah ne lee meeɗen nelaaɗo yummeede allah ne lee meeɗen nelaaɗo jom yàlla na ci ñun yónnent ak yërmande mu yónnee ci ñun yónnent ak jàmm kala mo jiɗɗa waɗi e diine hee kone adda fitina walla kone adda dillere nde ngannduɗaa ene tampina yimɓe walla ene lora yimɓe on annda diine mum nee na képp koo gis muy nitu diine ji li nga xam ne day indi firnde wala mu indi ay yëngu-yëngu xamal ne kooka def loolu de daa xamul diine so tawi ɗon en garti e ceerno meɗen cheikhna tidiane sharif radiallahu taala anu fekkente ne nag dellusi nañu si suñu sëriñ moolana cheikh ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu gooto e maɓɓe fof ko addi goo ene wona jeewte jeewte jeewte jeewte ɗe gasata ha abadal abid kenn ku nekk ci ñoom lu mu indi nekk na ay waxtaan ay waxtaani waxtaan yu ñu jar ci àddina bi ken yewtere fof ene weli e almubu tijjaniyanke wasu ene woni ɗum tiital nee na waxtaan bu ci ne doy na taalibe tijjaan bi ndam doy na ko pogare doy na ko tiital doy na ko tiital ene jeeya heen goɗɗo laawol tijjaani mo ngannduɗaa allah hokki ɗum ceerno men cheikh ahmad tijjaani yo wonan sowetas jamanu لأن بوكنا كي بلاد تريغا يوسم يلا وسيم سيد مولانا شيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه من نكل تعليمه صوتا سجمنا te wonani dendagal almuɗo tijjani ganduɗo lawol tijjani e muɗum ndam e tiital te ɗum ne nekki tamit taalibe tijjani bi nga xam ne xam na ku taalibe am maanaam tijjani muumel tiital ko honnono ceerno meɗen alhaji abdoul asis fall wiiri joni kon nu ko suñu sëriñ Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Fall nu mu ko waxee léegi. hade jàngoor laawul tijaan foog malaaka yi. nee na ki jëkk jàpp nag tariixa tijaan yi mooy malaaka yi. refti heen baaba adama. topp ci maam adama. refti heen denndaangal annabi e denndaangal annabi haa Isa alayhi salatu wassalam gooto fof jaggi laawul tijaan yi. topp ci mboolem yonent ba topp ci maam yonent yàlla Isa alayhi salatu wassalam ñoom ñëpp jàpp nañu tariixa bi. ɓe ɗo mbirti lawol ngol e ɗemgal malikaji ni wirde nañu tariqa witti landiñu malaaka yi ɓe ɗo mbirti lawol ngol e ɗemgal siriyaniya ni wirde nañu tariqa witti landiñu siriyaniya ɓe ɗo mbirti lawol ngol e ɗemgal abraniya ni wirde nañu tariqa witti landiñu abraniya mi ra sallah sallam noon firtani en lawol ngol e ɗemgal arabiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam جاوبنا القرآن كو إنت العرب جيبا جيبا دانسا تاو القرآن الكريم تلن من عرب لواج كل ملكة جگر له تجاني نكلا ملاكي جاب طريقة تجاني لأن الله هاجي تقد بابا آدم عليه الصلاة والسلام بيالا نمي بن مام آدم عليه الصلاة والسلام الله نباونا واسد حالا دي ملكا جدي ولا ديسنا دي ملكا جدي يلا منو نبني وخ ملاكي ولا بني ديسو ملاكي kono noon omo holla kilifa ko gonɗa kilifa fof gonɓe less ma ɓe wat yawru men won kilifa nen lolle kanko allah subahanahu wa taala omo omo wona omo holla kala kilifa moom yàlla subahanahu wa taala mu won bépp kilifa boo nekk kilifa du tax no toowirɗa fof ni nga kawe kawe yépp eno mawnirɗa fof ak loo màgg màgg eno jogirɗa geɗal fof ak loo yer cër cër woto yaw jimade ma nee na bul xeeb na ci li nga xam ne yaa ko tiim sen ñi ngay ilif ñi ngay ilif bu len xeb bu leen xeeb ñum wari loola moo tax booba di rassemblé dendangal malikaaji di fof mu rassemblé mboolem malaaka yëpp booba indi jaayilum fil ard khalifa mu ni indi jaayilum fil ardi xalifa ni di wadde e dow leydi he mi waton lom lomtoto lom ɗum man de bëgg na def ci kaw suuf ci ma def fofa ku may wutu ɓe mbayno elle kambe mu melni ñoom ñi dañu wiide ne watta eɓe e mbaɗa conseillé allah ɓe mbatta ɗum e laawol no melli dañu bëgg conseillé yàlla tegaan ko ci yoon eywa gawla tajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima a waɗan toon mo ngannduɗaa ñoom malaaka ñuy wax ni danga fay def day tour deret ene bonna leydi di yàq suuf o oh, inni alamu ala taala min mbiɗa anndi ko on nganndaa yàlla ne leen man de xam naa loo xamut Allah non mo tàbbi sanctionné sa bu kambe nga la góoful yàlla nag du len sanctionné ndax te ñom amu ñu bàkkaar kon non ne way lu longinde ɓe su tay bi mbadi ko ala e lawol wala su tay be mbaɗii ko da hadara o ene salii ɗum to bangi needi u tabe be ngarta e needi hadara yàlla nak mu ne len xelat li nga xamni bu ko defé fekk andum teggin wala ñu ñu def li nga xam ni tawi ɓe mo ne ko da ombondirane e teddu teddungal hadara o bu fekkante ni def na nañu mbir bi nga xamni ne déppoo mun hadara حضر يلا بيت حضر يلا بيت الله ما الله نلونج نب يلا مو لين دخل أيوة يب نبتو يب نبتو إني دي حضره نجوم دل نجي ما نم يا حضر لأن الله أن النبي يبدو أن يدي حضر وبدو أن يدي حضر وبدو أن سبحانك لا علم لا إلا ما أنت علم إلا ما علمتنا لأن من دلوتي يرو حضر ومن دلوتي يدو حضر من سبحانك لا علم إلا ما علمتنا istihfar loola nak mo istihfar ɓe gari ko tuubde ɓe ñaago allah ko ɓe mbaɗi koo ɓe mbaɗi reponnaitre heure maɓɓe ɓe ngari ewa andinde allah kamɓe ko ɓe ngannda haydara ko allah anndi fof jogii fof waawi fof ɓe ngarti ni gere ɗe fof e allah yo allah yo allah eyo jeggam ɓe ngantu neena mooye reconnaitre le luñi def ñoo ne jutuub ndi wax yalna leen yàlla jëggal ndaxte ñoo lu ñu def xamuñu ci dara yàlla xam lépp yàlla leen yàlla jëggal ɗum kon moon istihfar loola nag mooy istihfar kon non istighfar e ɗemngal malikaji engal la laamu way wa istighfar tilam ni malata malaaka ɗum xamuñu nu mel nde na la yasuna allah ma amaru wa yafalu ma yumur ɓe wafata allah ko allah o ko fof bat mbatta te non malata yi du duñu moy yàlla lépp nak lu yàlla digle lola la ñuy def so tawi en paami kamɓe fo be be jabi fo wadde erreur ɓe ñaagui allah yo allah nangam ɓe nganndu allah yo allah nangam ɓe nganndu yo allah yafuɓe ɗum non ko istighfar ko ɗo ku na bu dégg na ni ñoom nii wax nañu yàlla yàlla na leen yàlla jéggal ndax def nañu njuumte yàlla na leen yàlla jéggal wala dañu xam ne lii istighfar la. dafa di erreur. def nañu erreur. yoo àlla jaggal de ngant. yàlla yàlla na leen yàlla jàppal ngant li. loolu mooy istighfar loolu nag nekk na istighfar woni pardon astafirlah ko pardon tan loolu nag mooy jéggalu mooy pardon astafar ko pardon tan nee na istighfar a waɗat patron ma da ngay def sa patron ko ko ngannduɗa la nga o loolu nag ak patron bi am ci walla aɗa sikki hawranaade patron o walla nga yaakaar ni ci walla aɗa waɗi reconnaître an o juumi e ngal ɗo gollal walla yo ngal reconnaître yo mbi yaa juum ci bile jëf mbaɗanaa ɗum sadi mbiya patron ndeke man ko sëriñ nag nga ni pardon pardon won yaafu pardon mooy jéggal ma yaafu won astaghfirullah jéggal ma mooy astaghfirullah ma indani subhanaka la ilma lana illa ma allamtana o ɗo dari koye falas istigfar walla xam nañu subhana la ilma subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma allamtana min xam nañu lii mu ngi taxaw ci falas istigfar eyi o ko hindi ko goppo ko laaɓi la ca des nag moom daa set inna allaha إن الله وملائكته وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي ملك الله لأن يلا ملك أيدي أتي ما غادي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي ما الصلاة على النبي قرن جندي لأن خمدني جندي أنقلك الله دري وريفوف mboolem lu ñuy jaamu yàlla yépp so malaikaaji nde wata allah bu fekkente ay malaaka ñooy jaamu yàlla warata allah koy koy tawxiid nee na dañuy jaamu yàlla ci tawxiid so tawi ko jinne ji nde warata allah nde wata allah bu fekkente ne ay jinne ñooy jaamu yàlla ko tawxiid nde warata allah nee na tawxiid la ñuy jaamu yàlla so annabaaɓe nde wata allah bu fekkente ne ay yonente ñooy jaamu yàlla ɓe nde wata allah koye tawxiid ñu ngi jaamoo ci yàlla ci tawxiid so waliyaaɓe nde wata allah bu fekkente ne ay waliyu ñooy jaamu yàlla ɓe nde wata allah koye tawxiid ñu ngi jaamu jaamu yàlla ci tawhid so tawi ko julɗo ko ndewata allah bu fekkee ne jullit yëpp mooy jaamu yàlla ko ndewata allah koye tawhid nee na jullit ñu ngi jaamu yàlla ci tawhid tawhid ala ko nguɗiɗo ala ko ngu tasi tawhid amul ñaari baat amul ñetti baat ko kon kon goto tawhid jogi nee na benn baat la tawhid am woni la ilaha illa allah mooy la ilaha illa allah ndeka دايتانا أدي جاب قد الله والتجاني كن جبت جاب طريقة تجاني يقند الله سبحانه وتعالى في خم خم الله سبحانه وتعالى وملك أجي موي ملاكي ملك أجي غير جاب الله والتجاني ملاكي نون جك جاب طريقة تجاني ده ملك أجي جوتي بملاكي يسو ريوين بابا آدم كتتوك موي مام آدم بابا آدم عليه الصلاة والسلام مام آدم عليه الصلاة والسلام الله وقت نمو وقت نمو ba ko yàlla defalee lu mu ko defal tokki ma ko rokki ma ko mu may ko lim ko may tëdd ni ma ko tëdd ni ma ko mu terale ko lu mu ko terale welliti mooy dara aljannaaji dendaangal bellet ñu jox ko nag ndigal ci mboolem aljana lépp lu ko ci neex o waɗanaa heen feever ñu defal ko ci feever ko yiɗi fof yo waɗ lépp lu mu bëgg na ko ci def ɗo yiɗi fof yo yah fekk fu mu bëgg na ko yiɗi fof yo ñaam leppi ɗumo ko danalek kono feeruji nen ɗo waɗe waɗi yetto toon way feerus wigini ɗo fayante ɗumi sajaratul folde ɗum mbiya sajaratu on ɗon moye sajaratu booba mo ngannduɗa kanko ababa adama alayhi salatu wassalam mbaga xamni on mam adama alayhi salatu wassalam allah yamdum yo ñaam kala ko yiɗi aljanna ko ɗoto min kiɗo leppi yalla digal na ko lepp lu mu bëgg ci aljanna la ko lekk mbagas garab bi enen nañ loola dégg nañu ñu koy wax di ko wax nde allah hoddiro ñaami lekki ɗi ba yàlla toogalee nag muy lekk garab ga teddugal ngal ala hokkunoma ko aljannaji to teraanga jaga yàlla mayoon ci àjjana e geɗal ngal ala hokkunoma ko aljanna to ak cër bëgg yàlla mayoon ci àjjana ɗum ɗum fof allah ittini makko loolu yëpp yàlla dindi ko ci moom addi mo e ndiɗo e ndiɗo leydi wiitede aduna no inude to bilee suuf bu ñu tudde aduna aduna mo ngannduɗa fof mum ko tampere ne aduna leppam coono la eywa allah hokki mo heen yiide heen tampereji fof yàlla may ko mo gis ci mboole mi coono yëpp ɗum wonani mo sanction wonande mo kanko adama alayhi salam loola nag nekkal ko sanction moom maam adama alayhi salatu wasalam wiide sanction on hoy baye makko beele mo wellita e allah mo bëgg nag sanction boobu ayof ci moom ndax mu jubal yàlla allah ɗumnaka law tidiane yàlla ne ko na dugg ci tarixa tidiane anade law tidiane mi rottuma foof nee na boo duggee ci tarixa tidiane mo may la lépp on wi rabbana zalamna anfusana wax rabbana zalamna anfusana تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين من أستغفر الله لا لا ما أستغفر الله لم قال ملك أيضا الله عندنا lammiñu malaaka yi nag yàllaa ko xam kono noon kamɓe jeyaaɓe allah mawɓe ɓe waaye nag ñoomu nitu yàlla ñu mag ñi ɓe mbi baaba adama kanum haalana ko ɗemngal sariyaniya nee na maam adama ci lammiñu sariyaniya la doon wax o waɗi noon astahfirullah e ɗemngal sariyaniya yo allah yaafumo e ko o juumi to to to aljannaji to mu def foofu astahfir astahfirullah ci lammiñu sariyani ci la mu juum fële ci aljana yàlla ko ci yàlla jéggal o woni heen o woni heen o woni heen o woni heen o tampi

مون صلاه على النبي مون صلاه على النبي دو صلاه على النبي ده بمو دفه صلاه على النبي مومن بدي الله سبحانه وتعالى مجود يا الله سبحانه وتعالى وبدي استغفر الله دفنا استغفر الله وبدي صلاه على النبي مدف صلاه على النبي توحيد هو هنا ادنا نين التوحيد في لول لا انه على وان دفا واتي وان التوحيد دفا واتي وان التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله هذه مكو يادي لا تمويدم وجنجن صلاه الف... صلاه وجنجن استغفار وجنجل استغفار إيه صلاه النبي اك صلاه على النبي إيه لا اله الا الله اك لا اله الا الله شيسو عليه الصلاه والسلام شيسو عليه الصلاه والسلام دوما لا وان من هذا مياد كو لا تمويدم لونجن بيوم kelen ko doomam mo ganduɗa ko on jogori lomtade ɗo banggue nubbugo to kiiga xamni kooka moonere wututi wallu nubboji noon yaari noon yaari ha yetti isa alayhi salatu wassalam noonu la deme noonu la deme ɓe edde ci isa alayhi salatu wassalam nde qur'an are meɗen ba alquran ñuwe ci ñun fawa jungo rasulullahi sallallah sallam ñu teg ko ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu sallam addani en firo firo firo ɗemgal maleykaji yal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñu firit malaaka yi addana en firo sariyaniyankoore mi innimi firo sariyaniya nde andana en denndaangal ɗemɗe mali ɗemɗe annabaɓe e waɗannoɓe istihfar e salatu ala nabi fof mi innini ngoolemin lamnin yonente yuɗon def istihfar a salatu ala nabi sisen lamnin allah wimo yo hokku ɗum hokku ɗum leñol ngol yallah ne ko may ko heɓbi ndokka ko noon en généralité goto fof e jaggu hen namne ko en généralité kenno kune nati jabbo o istahfiru rabbakum innahu kana gaffara woni istahfiru rabbakum innahu kana gaffara mbaɗa astahfirullah mbaɗa astahfirullah oɗon kewi bakkutuji oɗon kewi musibbaji mo allah woni jafoto so allah yaka onon fof to ko jeemol paɗum ndene des deflen astahfirullah deflen astahfirullah mbaɗe gen ay bakkar mbaɗe gen ay musiba gen tukki yallah yallah jeggal len so tawi jafnude allah jeggalulen yallah ɗum woni astahfirullah alim moom loolu mooy astafurlah dikk. àll bi. yàlla nee na. ca dandaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. gannaaw bu mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. allah baabe fo goto fof andinde salatu allah kesen haalna e hoore mum. nee na yonent yëpp dañ leen di xamal salatu ala nabi yemal le yemal ko ci boppam. gaa noon allah yidde allah yurmaade tagore nde e bange diinul islam. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تو التوحيد ما بينه يو كلمة التوحيد مسكت كلمة التوحيد مو عندك مني جفن لكم كنون وانا istighfar oɗo istighfar bile salatu ala nabi oɗo bile salatu ala nabi la ilaha illallah oɗo bile la ilaha illallah yimɓe fof dokkama ɗum minni yep maynel len ko kono noon wayna ñibde hen sakti suba kay kiguiɗe suba ak gon waɗa ɗum def ko waɗa ɗum saabu allah defe ko ngir yalla tawa ɗabbani hen aduna fekk wuti ci aduna ɗabbani hen aljanna wuti ci aljanna ɗabbani hen jeygu hulani hen jeygol ragalu ci safara ɗum ɗon ne yowa dow loola nag ñum ko acci kaw waa Thierno ba Cheikh Ahmad Tidiane ba suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane dikk da ceerno cheikh ramata en ari ɗum suñu sëriñ mawlana cheikh tidiane dikke allah hokkimo ko rokkimo ko yalla may ko lim ko may rewni ɗum e rasulullahi sallallahu alih w sallam jaarale ko ti rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam holno ceerno meɗen cheikh alhaji abdoul asis winni ɗum suñu sëriñ cheikh abdoul asis ɗum ko waɗe nde o rokkimo astahfirullah o ɗum ko jehe astahfirullah ni o rokkimo salatu annabi o mo jox ko salatu alannabi ɗi o rokkimo la ilaha illallah o mo jox ko la ilaha illallah waɗnamo garanti min a dafalma garanti o garanti oɗo mu ne bilee garanti kala jaggoɗo ɗum keppu ko ɓe jaggo tewmon harmi jeego yaɓɓam aramal no safara ko noon kadi haani wonde tawi noono le yiɗɗo waranal a ñaaguima allah yaafoye subaka ñaande yalla jeggal suba a ñaaguima allah yaafoye kigiɗe nde a yalla jeggal ngoon a duumima heen nde sahti an casier judiciaire ma ko berge yo so casier judiciaire berge la saabu neɗɗo wawa bakkat ko bakkat jamma walla bakkat yaram tan woni nene bakkat guddi walla bakkat bitti mo mo tat mo am kala sa fini subaka ne ɓo mbon daa jàmm foofu. ci bàkkaar bu nga defoon ci guddi yaa yàlla yaafu ma yàlla yaafu ma yàlla yaafu ma. nga wax yàlla ma yàlla jéggal yàlla jéggal ma yàlla jéggal ma. yàlla yaafu ma. yàlla jéggal la. kan njaxaay àdduna. rek nga demaat ci àdduna. xaaki gii de. ba ngoon. mba naa mbi yaakaar yàlla yaafu ma yàlla yaafu ma yàlla yaafu ma. nga wax yàlla jéggal ma yàlla jéggal ma. ba daa ñalam fo àlla yaafu ma. la nga defoon ci bëccëg bi yëpp yàlla jéggal la. àlla yaafu ma ma xaalaa bi bakkatuñ ma foofu. yàlla jéggal la say mboolem bàkkaar yëpp ba mu aari àlla ka da jógi casier judiciaire vierge. yow nga ñëw ci yàlla ñu yor casier judiciaire vierge. ah ah jii daay tampanaadu yeesu tampanaa cag tegal ha ha fof ɓawli yo bokko hakkiga xam ne dañ ka tampanel ci kanam ak ci ginnaaw ba yëpp ka toom yëpp nuul ɗum no enen tijaaniyankoɓe ala fof ko wonan en sowona wiide alhamdulillahi rabbil alamin bon nag ñun tijaani amul lenn nag lu ñu war lu dul ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nde coggoji moƴƴi coggi en naani ngol ngol ɗo lawol nenen yi wommat wommat yu baax yi bu ñu wommatee dugal ci yoon شيخنا متجان ويا شير ما شيخنا متجان ويا نحن سنسير شيخنا متجان ونروحني وانا لا ونقول وانا اي دني نحن يوم بنا كل بكرة أم الله هو يدا دني ده تيسب مور لنا أم الإقبال منا الإقبال منا والإدبار منا والإدبار منا كم الله أندني موم لا يلا خمل قولي المبد مكو نن نوي تالبين قولي المبد مكو تفك مكو مخت أي تالبين تفك الله أندني مكو هول بغنا المبد مكو يلا خمل قول ندل أي طالبين بغنا المبد مكو بين جاري تو نعم نكون سن تالبين دمين نلي يلا زين يلا نجي يلا مسل نجار فله yàlla gën na leen yàlla ci yàlla musal te yàlla walli kon ci yàlla te yàlla walli en noon kon ci yàlla dimbali na na ha en naate law tijani he ba ñu dugg ci tariqa tijani bi eywa eywa تنقذ شرط الله تجاه. كنا من تنقذ شرط تاريخ التجاه. مولانا الشيخ عبد العزيز الجني. كنا كنا مولانا الشيخ عبد العزيز وخيلي. تنقذ لنا السنة. نمي تنقذ السنة. تنقذ لنا الشريعة. تنقذ الشريعة. تنقذ لنا اللابل. نتقذ السحر. ceerno meɗen cheikh ahmad tidiane suñu sëriñ cheikh ahmad tidiane yi omo yiɗi juulo timmugo bëgg na julli bu mat darde timmude taxawaay taxawaay bu mat rukuo timmuɗo rukuo bu mat sujuude timmuɗo sujuude bu mat julde teeyde julli gu teey julde moƴƴere julli gu baax julde tawnaade julli gu ñu teewal Eh, so tawi kadi wi ko ewa lasim bu fekkentene so lasim la mbaɗa lasim teyɗo nde def lasim bu tey wasifa teyɗo wasifa bu tey wasifa o mbaɗa e ko ci mbolno go ane a asru teyɗo nga def asru bu tey jagga ɗum ɗon nga jappo ci lool mbasa hoolade hoto allah noon nga baña nak wuulu naagu fof nan ganda ko allah lépp nag nga xam ni yàlla la heydino allah wallima naati e gueɗe allah comme ça nag yàlla la dimbali na ba nga dugg ci mbiru yàlla te allah koko ceerno mbeɗe abdoul asis wi ko te yàlla li nga xam ne ni cheikh abdoul asis sall wax léegi faalu lima yuridu nee na faalu lima yuridu xefa xipp om waawi changedu hunde o watta ɗum hunde wonde nee na ci xef ak xipp mun na soppi mbir defar leneen te ana maayani te yow deewo ko a annda holko hoddirte ma te xamoon lan lay dogal ci yow won tan baynal xawfi war rajayi kon naka nekk ci diggante njort lu rafet ak tiitaange njort da allah na njort ci yàlla moƴƴireeji mum ci ay mbaaxam ak yi won e ci neneen tariqa tijaani kula allah garagal yàlla hoddireeji munen ci ay ndogalam a ah, annda ko hoddirema xamoo lan la dogal ci yow ni tijaanen ko wiya nii lañ wax taalibe tijaan laawol tijaani noon tariqa tijaani nag kuɓeeji umminaani ngol umminaani na ay tabax to ko koy jog ku mu daan lawal tijaan de taxu ko jóg de soo tere bu naatira lawal tijaan ne bu fekkente ne loola njëkkatul tarixa tijaan yi so fa ɗum ɗon naatira lawol tijaan bu fekkente ne loola ngay duggee ci tarixa tijaan yi sahay birama jooɗɗa bila boyakoona toon aɗa waawi noon heɓde ɗum nun ko ko am na kono wonaa ɗum won objectif principal lawol tijaan waaye du loolu moo objectif principal tarixa tijaan lawol tijaan tarixa tijaan wonaa renndide milliard uji nekkul di dajale ay milliard lawol tijaan tawi hati jaami wona arendinde booluji ñamde ha heewa ha heewa ha heewa nekkulde dañale ay ko ni ñam yu bare bare bare laawul tijaan tariqa tijaani wala din diggante ha heew ha heew nekkul di dajale ay mbooloo yu bare bare laawul tijaani tariqa tijaani laawul yettir jettirteegol allah tariqa la bu ñuy sante yàlla e neemaaji ɗi allah waɗanmaaɗi ay ci xéewal yàlla yàlla defal ndewa allah ndewra sabu ndewra allah sabu allah nga jaamoo yàlla jaamoo yàlla ngir yàlla mbaɗa heɓa yori allah ndax nga am ngërëmal yàlla ɗumol laawul tijaani lii mooy tariqa tijaani en ñaagimalla subhanahu wa taala ñaan nanu yàlla subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla may ñu doon ay taalibe tijaan yi du summeeku ba xaw no wonnanti daaw mbaɗɗen hono daani no def no mel ni yo allah wuurno en sellina en yalla no yalla ɗumdal te weɗallu haa ko waɗon saha mo wuri kadi wonno dañe negani ɗemen tawde wiide mbustari fekko ñu yokku baña waññe ko en jetti allah en jetti imam cheyba nenen santanano yalla nak santir imam seyba no o udditiri yewtere nde ni ni mo ubbe waxtaan e wonande fida o musidɗo meɗen ak dafal fida o sunu xarit alhaji abdoul asis kan alhaji abdoul asis kan yo allah yurmo mo yafomo yalla ko yalla yeruta jeggal ko amin mo yafomo yalla ko yalla yerum yërëmtu jéggal ko yàlla ko yàlla yërëmtu jéggal ko naanam aljanna dugal ko aljanna kanko e may men may moom ak suñu way dawlu ak mboolem way dawlu jullit yi inchallah jàngo 10 heures ay wato rawda Ceerno Seydou Nour to nee na inchallah suba ci 10 heures ci rawda Ceerno Seydou Nour nden ɗon wonta leeɓede kooro foofu mooy leeɓede koor caggal mum ɓe nawmo kawlax gannaaw loola nag ñu yóbbu ko kawlax kala bu ci mën a dem fekke ji ko moƴƴi yaha hawra heen hen baax na de mo ɗen fekke jiko so allah hoddiri kadi a hawrani hen ko yalla dogale it fekke o ko e won ɗum wonɗa mo ne ñanan ko ɗum wonɗa hoore ma ne ñanan sa bopp ɗum wonɗa bandiraɓe ma jiɗi foof e ñanan sen bokk julit yeb allah jabanan yalla no yalla nangul ono fol on on on beltanama yen ñepp nag ñu ngi leen di bége on beltanama yen ñepp ñu ngi leen di bége beltanama yen ñepp ñu ngi leen di bége beltanama yen ñepp ñu ngi leen di bége on jarnama ñu ngi leen di jaajëfal on jarnama ñu ngi leen di jaajëfal on duwanama ñaanal leen leen wonama ñaanal leen leen ñagama sàkku nañ leen ñaan yal na ñu yàlla mën ñu fekkee ne nga ñu déwén asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kewlore ndinde haɗa e sharif am bulore réseau nag daane mi faral di dajale adiya sérif yi eyo kala jogiiɗo nee na képp ko yor taw lorata ɗum fekk du ko lor yo addu na indi addere sabu allah no inde nag ngir yàlla mo ngannduɗa so yaltini ki nga xam ne bu lorma dina ko lor lomtina hadiyo o salatu ala nabi nga wutu hadiyo bi salatu ala nabi mo ngannduɗa addurani kadi hay batte ki nga xam ne tamit nabi nga def salatu ala nabi dokkaɗo hadiya kadi mbaɗa salatu nabi ɓuuri timmude nga génne hadiya bi boole ci salatu ala nabi mo gina mat ko manqué manqué hadiya koko li manqué ci hadiya bi yëpp salaatu ala nabi o timmina ɗum salaatu ala nabi ɗum matal ko yo allah waɗan en ɗum yo allah ko yo allah defal ko jeeyi rasulullah sa sallam si darade yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo noon jeeyaka e hadiya o ɓe mbi ko almuɓe ko jeeni li bokko ci hadiya bi ɗenoni taalibe yoko mum joni noon mawɗo taari yo yo yo yaay ñuntu yo yo yo kay kay jayde awa kii kii jox ko magu taali bi yéen a xam yéen seen affaire boobu. waaw loolu moom sama man ànd fa. sama domaine. aywa macha allah.